mbégte ko dul jeex mbokk yi leen yem saa su ne dañoo génn ci waxtu wi la bismilla ci xibaaru diggi bëccëg gi la ca gën a fës na ci organisation instituteur yi ci Sénégal ñoom OIS nag mer ba fut la def ni jamono ji li ñuy dégg ci réew pa Sénégal ay euh, kaddu yoo xam ne ni amul bopp amul génn waxtaan woo xam ne sottilu lenn ñu koy tudd coowal Ousmane Sonko mbirub viol ba ci Adji Sarr te la cay euh, ñuul ci soom mi ba tey kenn seppiwu ko di njàng meeg njàngale mi wëy di taggatémbee tax nag ñu amal janoo taskatu xibaar yi ñoom ña nga xam ne ñoo di euh, bokkes ci kuréelu instituteurs yi ne rek faaw rek ñu gëstu euh, lottaayu askan wi jaarale ko nag ci wàllu njàng meeg njàngale mi des na teewlu euh, ki jiite seen kuréel ci biir euh, xibaar yi lu jëm nag ca njaboot gi nga xam ne ñoo féetewoo ca palais nationaux juróomi njaboot la yoo xam ne nii ñoo daan liggéeyal palais ba waaye la ca jàpp la ca la cay coono mooy ne jamono ji yone nañ leen ab bataaxal ni faaw rek ñu génn seen bërëbu boobu lee ñu leen njukkale woon ñoom nag lañ ca mooy ne jotuñu benn kayit bu koy firndeel fi mu ne nag joxoon nañ ca baaraamu tuuma direction intendant bu euh, palais euh, des euh, des palais nationaux di leen teewlu seen kàddu ci biir xibaar yi mbiru Ousmane Sonko des na ko àddu ci xibaaru digg bëccëg gi ak jàpp yi nga xam ne ñu ngi koy wéyal ba tey jamono ji lu toll ci fukk ak ñeenti ñooñu Ousmane Sonko démb jël nañ leen yóbbu ñu ci bëri nag ay soxna lañu gannaaw bu ñu jógewee ci groupe buntu groupe Walfadjri di rek amal ñaxtu ci ni ñu teggee malanu kirlaay bu Ousmane Sonko ne duñu ko seetaan benn yoon ñu mën ci nemmeeku sax seenu njiit njiitu lingeeru Pastef li mbokki nu ci toftal xibaar yi ngeen biti réew ànd ceeg euh, Fatou Bintou Diouf daal di koy ndar képpel yi ni kaay ak Omar Bun Xattaab Gueye bisimilah ñu tàqal ñu xibaaru digg bëccëg gi bisimila àdduna wërngël képp ñuy rafet lu baax a baax seen ànd ak Walfadjri ba fi tataanee xibaar xibaaru digg bëccëg gi dana koy dooree ak jafe-jafe yi nga xamante ne nii euh, ñi nga xam ne ñoo di organisation instructeurs yi ci Sénégal ñu ngi koy jànkuwanteel bu weesoo nag dàq yu tar yi ñu nemmeeku ci jamonoy mbas gi ñu nekk euh, seen i ndàmpaañu examen bu nu ko defee ba noppi gi jote ci day doon lu jafe ak yeneen i euh, jafe yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy jànkuwanteel tax nag ñu fëgg ci table gi te dootuñu seetaanati benn yoon ñu yëkkati ay kàddu yoo xam ne nii amul benn solo ci réew Sénégal ñu koy waxtaan waxtaanee di ko jiital ñëpp di ci àddu te la fiy ñuul ci soow bi kenn seppiwu ko muy mbiru jàng meeg jàngale mi association gi lee di OIS euh, te rek ñu daal di bokkees ci euh, rénovation euh, démocratique amal janook taskatu xibaar seen ëpp njiit di Maguette Diop général bi di métit lu tekk tekkaara gi mu nemmeeku ci état bu Sénégal ne yëlu yàbbi benn yoon ci seen ëpp mujjanteel ñu teewlu ko moom màgget Diop di secretaire général OIS RD ak Théodore Semedo espèce de dualité bu nekk au sommet de l'État ñu ne Macky ak Sonko la wala APR ak euh, Pastef ñu nekk di nourrir débat boobu ba bés bu ne nit ki bu xëyee ba ngoon fajar ba ngoon yaa ngi wax ci loolu alors que ñun dañoo fàtte sax suñuy problème que ñun dañoo am problème nous les Sénégalais problème yi mooy lan mais tey jii ñu ngi dàq ay nit ay travailleurs manko bi nga xamee ne cent trente travailleurs dàq na leen ñu affilié woon si EGS e les retraités ils souffrent actuellement xamuñu xamuñu sax lu lu ñuy def li ñuy am xamuñu nan lañ koy gérer jàng mi kenn waxatu ko depuis ki ñu ngi ñu ngi grève depuis un certain temps ñu ngi grève grève bi lan la fay leen ma examen daaw yi waaw déplacement yi ma kii woon waaw lu may liggéey fay leen ma ko te am na catégorie de fonction euh, fonctionnaire yoo xam ne dan leen koy fay avant ñuy dem. E, e, examen yi ñu jëm nii deux mille vingt buñ ko fayul ah buñ ko fayul avant ñuy dem wala ñu seet naka la ñuy gérer loolu joxe une partie après ñu joxe li ci des. Mariama Sarr moom wax dëgg yàlla ah ñun bu ñu sañoon mu ñu jëlee ko fi bu yàgg. elle n'a pas sa place dans la fonction publique donc avancement dara demul ah validation dul dara lu bouger. waaw donc nit ñi ñu ngi xaar depuis cinq ans dix ans signature nag léegi ay six mois ngay xaar signature on se demande Mariama saar léegi lan lay liggéey. bu ma nee centrale syndicale sax ñun ci lañ bokk ñun union des travailleurs waaye ñi nga xamee ne ñoom nee nañu ñoo fi ëpp doole waaw tey jii défendre ñu benn travailleur ñu ngi toog fi ñu toog ah ñu leen di jox subvention ñuy toog di di ko lekk. am Sonko indil Adji Sarr gu dul jeex te dara sottiwul ci réewum Sénégal loolu la instituteurs yi di euh, doon jooytu noonu leen ñu teewlu woon ci Maguette Diop nekk seen secrétaire général ñu àddu ba tey ci mbirub Sonko faaw ñu desandi ci ndax daanaka njaw desandaw xambin li nga xam ne ni lañ koy xaar ba tey ci dossier bi daanaka euh, lañ ca mën a jàpp mooy ni démb euh, laal nañu malanu kirlaayu Ousmane sonk dara doxatam ci digganteem ak attekaay bi liñ ci mën a jàpp mooy ni ay ñoñam ne duñu ko nangu benn yoon ndax procédure ba na mu mel nañu ko tëggee neexu leen te am na lu ca lees waxul ñoom soxna yi nag amaloon démb ab ab euh, ñaxtu ñaxtu goo xam ne doxoon nañu ba ca buntu euh, groupe yi fa ne leen nengeñee yóbbu leen euh, ca loxo yi yoon teg leen loxo bokk na ci nag seen ëpp njiit di rek Maimouna Dièye moom sax moo nekk njiital jigéen ñu Pastef yi métitlu nag li nga xam ne moom la ñuy jàpp ne dañuy salfaañee seen ëpp njiit di Ousmane Sonko mi ñu jàpp ne ab complot la ñu gàll ci ndox ndoddam di ab complot euh, politique lañu ko àddinoon te xon ci baaraamu tuuma njiitu réew mi euh, Macky Sall jot ngeen déglu ay kàddoom ci sunu xibaar yi jot euh, juróom juróomi njaboot yi nga xamante nii ñoom ñoo dëkkee ci euh, palais nation euh, pale euh, palais nationaux ñoom nag jamono ji lañu ñu rek daal di àddune faaw rek ñu génn seen bërëb yooyu ñu leen joxoon ñoom nag yàggal liggéeyaloon palais bi ci ay jamono bañ joxoon leen kër ca diwaan yooyu lee xëy nañu nag ñu bëgg leen a déjjati fa ñu dëkk ak seen i njaboot ñoom jàpp na ne nag jotuñu benn këyit boo xam ne mooy nitu fii ne war nañu faa jëlee ci wala ñu war nañ leen a jëlee ci seen bërëb yooyu lee tax nag ñu métit lu ko lool ay euh, kenn ci ñoom di Jean-Claude Sagna sekk nag kaddu waxtaan suñu naataango Fatou Bintou Diouf ñu teewlu ko. ñun dañu am naqar boo xam ne ni ñu njiit yi fi nekk dañuy jékki-jékki rek teg ñu nañu suba dañu fi war a jógee ci suñu logement yi ñu jox logement yi ñu ñu jël neen suba yaa ngi fiy jógee waa patrimoine bâti ñooñu ñëw démb wax ñu ko ñu ne ñu amuñu droit jox lañu benn formation amuñ benn papier bi ñu waxoon dañuy génn fii nee nañ nee na yéen amu leen droit boo ngeen def fii parce que seen colonel nee na moom dugalu leen fii te moom dem na yoonam nag il a tourné la page ma ne leen déedéet kilifa du waxee noonu doxee noonu moom mooy intendant palais nationaux warul waxee noonu parce que ñun su on est sous sa tutelle donc bu dee def ñoo sandi nii ñun kenn foruñu ñu indi ñu fi kenn forcé ñu ñu ñëw ñu ñëw dëkk fii ndax suñu liggéey moo ñu may ñu indi ñu ñëw dëkk woon ñu ko kenn mu ñëw dëkkloo ñu fii ñu dañuy servir état hébergement la ñu yo président yi fi ñëw ñu ñoo leen di héberger proximité bi dafay baax ñu liggéey moo tax ñu héberger ñu c'est pas que ay cadre lañu wala quoi que ça non non du loolu bu ñu génnee tamit que ce soit dans les règles de l'art te bu ñu génnee tey fa la ñu jëm tuba suñu fi la ñuy jàngee ñun fa ñu jëm au fait y a yu fi nekk yoo xam ne ni ñun ñëpp ci ci bureau bi la woon dañ ñoo logé ci suuf yëpp nag ci kaw kenn xamul fu fu ñu toog ñun ñëpp suñu leer dañoo tendre dañu ci te ñeneen question na ñëpp bëgg nañ taxaw pour ñëw mën a wax comme dañoo nekk ci zone boo xam ne dafa sensible affaire état la présidence la ñii dañoo ragal man yàlla laa gëm damay wax bu xam ne lii injustice bu li injustice la marché Petersen lakkati na daanaka lakk gu métti lañu fa nemmeeku ndi ki démb juróom-benni cantine lakk ba doon doom fukk ak ñaar ci ay taabal daanaka furaas euh, lan ca ñàkk ci jumtukaay yi tamit bari na waaye ba tey kenn xamut lan moo indi lakk googu leen ñu teewlu ci lieutenant Arouna Diallo bu sapeur pompier ñëwoon na defi constat ak Mélanie Aminata Sombu. dañoo woo tey si 15 heures 42 si ngoon la woo. Euh, pour benn feu de cantine ak euh, ay taabal yu ñuy teg di jaay 15 euh, heures 45 oto yu njëkk yi ñëw nañ di xaar yeneen renfort yeneen unité yi biñ ñëwee li njëkk a def mooy géem a tënk takk tàkk bi pour mu bañ a jéggi dayoo fi tàkk-tàkk bi jógee mënaguñ ko saytu fi mu toll nii foog opération yëpp terminé su opération yëpp jeexe dañ bàyyi enquêteurs yi def euh, seen euh, liggéey pour xam euh, fan la dayu bi jógee. dix cantines lañu la ñu gum fi mu toll nii mais suñu paree yëpp yëpp yëpp dinañ def bilan définitif pour mën a xam bilan yi ñaata la mais xam naa ne taabal yi daal ñoom ñoo ëppoon. commerçant yi nag jamono ji ñoom dañoo jommi jëppet ne mënuñoo xayma koppar ga ñu fa euh, ñàkk mun nañ sax àdduna ay millions préfet bu Ndakaaru nag ñëwoon na euh, ngir gëstu dégâts yi waaye tamit xool naka lay defalee ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat ya fa fare nday aji koon a jiy ñu teewlu ko ci yaatal bi ñuy dugg ci marché Petersen ay matériel yu lakk ba jeex tàkk saxaar si ak xetam gi mu àndal loolu moo ñu teeru lu ni mel deful lu dul firndeel dayoo gu metti gi lakk gi amoon ñi si loru ñoo ngi koy dëggal. moo xam nga comme c'est a formalisé xay koo ko quoi ñu noo ñuy liggéeyee moo tax mënuñu laa ne ñaata lañ lakkale mais nag wax dëgg na xëy lakkal lañ fi lu bëri moom waaw bëri na moom ñu fi lakkalee xaalis la de. mais mënuñ fee nekk naan nangam lañ lakkale mais ça dépasse les millions quoi. bagage nag bëri woon amoon na électroménager bon lu fi nekkoon daal bëri na macha allah. waaw lépp lakk ba jaay dara génnu fi benn. waaw ñu ne fii li ñu fi jaay rek la ñuy jaay ay ay micro-ondes ay télé électronique rek bagage yi jaay quoi yooyu la ñuy jaay fii waaw. lépp lakk fi mu nekk nii li fi lakk moom ñun ñu ko xayma parce que ñun ni ñuy liggéey dañuy jënd suñu bagage te gratis bu jeexee ñu dem jënd war leen bu ñu wàccee sax comme ñun ñoo fi nekk ñun di di taaba taaba dañuy korkoral rek dañuy dañuy dañuy xool du nu mën a xam daal nu mënuñ ko xayma daal fi mu nekk nii. Dame njiital marchand ambulant yi ci marché Petersen moom mi ngi ñaawlu yéexaayu sapeur pompier yi. fii war naa am ay bout santé yoo xamante ne bii heure bu lakk amee balaa sapeur ñëw fekk askan bi mën a mën see def lu bare bëree bëree mais bu lakk amee tey balaa sapeur ñëw di lakk day bëri ndox doo am benn ndox boo xam ne da nga mën a fay lakk bi. suñu li fa yàqu bari na gis nga yaa ko gisal sa bi rek maa ngi tànk bi maa ngi seen yàlla def na jàppagul mais li nekk ci bagage yàqu na en ñi ngi sàkku état bi moom moo encadré ñëpp préfet bu ndakaaru amal fa ab tukki nemmeeku ginnaaw ba mu leen massawoo mi ngi ñaawlu lakk-lakku gu bëri yu ñuy faral di gis ci biir marché bi ñetteel wala ñeenteel bi yoon a ngi ñu tombé ci lakk gu métti goo xam ne la indi indi euh, dugguñu ci l'enquête bi mais li leer ba leer mooy toogaay yi ak taxawaay yi li nit ñi amee mooy loo xam ne mën nañ ko ci duut baaraam parce que xam ngeen fii comme ni ma ko waxee boo ko xoolee ba ci biir sax du marché ay kër la boo ko xoolee ba ci biir ni ñu installé wo déjà même bu lakk amee difficulté day am pour ñi nga xam ñooy wàllu ñu ñëw mën a yegg si gis ngeen sapeur pompier yi ñëwoon nañ si sax man ma am urgence génn di kat mais même pour accéder pour mën a liggéey day jafe mais lu ñu mën a defa defa def dafa am loo xam ni ci ndëganiku comportement la toogaay comportement mooy ngay jal ay livre di jal matériel boo xam ni bu mbir nee xos mu gaaw a tàkk loolu lun la mën a teg ci kenn situation yi day daal di jafe moo tax ñuy lancer un appel gannaaw ba ñu leen mastawoo suñu mbokk commerçant yi ñu jéem def effort en attendant sumb yooyu nga xam état bi sumb na ko mën a motti mën a sotti ñu mën a def effort ba nga xam ne lii vraiment mu doon lu fi lu fi géej ay lakk-lakk gu bëri la ñuy faral di nemmeeku ci jabar yu nekk fii si ndakaaru moonte sax ay projet yu bëri sanc nañ ko ngir gën a yeesalaat donte sax jaaykat yépp nanguñ ko woon ñi si loru ñoom jamono ji seen mbëbët mooy ñu daal di jëmmal yooyu les projets si nu mu gën a gaawee Ndeye Adji Kounda euh, Dieye ñu daal di waxtaanee nag euh, ci euh, mbas mi wopp geeg coronavirus lañ ci mën a jàpp mooy ne tey situation bés bi mën nañu jàpp lu toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti ñaar fukk ak ñeent ci ay doomi adama am nañu mbas mi ci ñaari junni ak ñaari téeméer fukki test yoo xam ne jot nañu ko réaliser ci àjjuma gi nag juróom-ñetti doomi jot nañoo ñàkk seenu bakkee ni kii démb juróom fukki doomi aadama jamono ji ñu nga Sowétas lañ ci mën a jàpp yi tamit wànne euh, teewut lu toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay doomi aadama ñoom euh, contrôlé nañ leen négatif ñu daal di rek euh, wër loolee ministère de la santé et l'action sociale moom moo ko daal di xamle ci point du jour am daal di sàkku tamit ci askanub Sénégal ñu gën a sàllooy dige yi waaye tamit respecté mesures barrières yi ngir rek wopp gekk coronavirus daal di fee jógee ci wopp gi coronavirus sax la ñuy desandi mbir mi di gën a wulle ñaay ci banlieue bu Ndakaaru tax nag autorité médicale yi di sàkku ci askan wi ñu gën a moytandiku waaye tamit respecté li nga xam ne moom moo di mesure barrière yi loolee ñu ngi ko yëkkati woon ci campagne vaccination bi nga xam ne dooroon nañu ko ci Pikine ginnaaw raay sud ñu teewlu ci leeral yeeg Théodore Semedo ginnaaw raay sud tàmmali campagne yu ñàkku ci mbirum wopp bi ñuy wax covid 19 ndaxte lu toll si fanweeru dose vaccin moom la ñu war a jagleel waa kër docteur bu sukkandiku si maire bi fa nekk Ablaye Diop ak Khadili Diouf infirmière chef de poste de santé bi nekk ci gox bi euh, comme vaccin na dafa am nu ñu koy démarré dañ ñëwoon tey ñun pour donner le mot d'ordre ma ne kilifa dëkk bi yëpp a ngi nii ndax maire a ngi nii président délégué imam commissaire de police les conseils municipaux les bàjjenu gox taxaw te kenn ku ne ñàkk nga war na ah nag kon ñëpp a war a ñàkk parce que ñun ñëpp ay doomu aadama te ñàkk bi li may jëriñ moom sa morom kon il n'est pas question kii def kii bañ ko def. aujourd'hui qu'on a reçu nos doses pour euh, vraiment se vacciner nous les agents de santé on a jugé nécessaire d'informer le premier magistrat de la commune en l'occurrence monsieur le maire. Euh, pour l'instant On a les 12 concernant les personnels de santé. Euh, j'ai reçu 30 doses concernant pour la personnel euh, sanitaire. ci gox boobu nga xam ne bi wàpp Covid 19 tàmbali ba léegi ñetti cas rek lañ joto am foofu ñi nga xam ne ñoo nekk waa kër docteur rawatina ci mairie bi ñoom ñu ngi sàkku si askan bi gën a jëfee mandargal yi nga xam ne waa kër docteur moom lañ joxe waaye tamit ñàkku ngir ñu mën a mucc ci jàngoro bi. waaw cas yi moom bëriwul wax dëgg yàlla buñ commencé léegi je crois passe wu ñetti cas. ci sama information d'une manière officielle waaye nag bu bàyyi suñu loxo ndax war yàlla ñu ngi si gërëm la commissaire de police liggéey am solo lañ ci def ci marché dëkk bi partout ñu ngi surveiller ñu ngi wax euh, ñi nga xam ne aussi ñooy commission yi ak mairie bi ak waa ak bàjjen gox ak ak relais yi def ñu ngi def tout le temps di waxante nit ñi moo tax yàlla mu ngi dimbale waaye nag bu bàyyi loxo nañ ko ne di ko def si wante am nañ ay cas man dañuy wax rek population mooy ñu ñàkku ñuy wax population mooy ñu respecter mesures barrières yi mooy tu takk maski raxas loxo yi def distanciation ñun ensemble bu ñu ñàkkoo ñun ñëpp ñu boole développer li ñu naan immunité collective pour mën a sànni génne mala euh, pandémie bi feebar bii lëmbee jamono ñu mën ko dàq suñu commune Sénégal et dans le monde entier. autorités yi nekk ginnaaw raay sud ñoom ñu ngi am njort ne seeni mandargal askan bi dinañ ko jëfee ngir gën a mucc ci wopp covid 19 ki nañ jox ko yéen fi si diwaanu ginnaaw raay sud Théodore Semedo Walfadjri Euh, Théodore Semedo des desandi ak yow ci ginnaaw raay sud googule sax jafe-jafe gi ñu doon am ci wàllum pàcc léegi mu dëddu leen ndax i tamit ñu autorité yi fexe nañu rek ba daal di yeesalaat liggéey gi nga xam ne dooroon nañu ko ngir wàllum pàcc gi gën a mën a mucc ayib moom Abdoulaye Diop yëkkati na ci kàddu mooy maire bu ginnaaw raay sud ñu teewlu ko Théodore Semedo waaw d'ici le 31 mars daal lañ ma mujj wax la délégation qui est devenue l'autre jour man nekk ci woon mais sama sama sama gars ñu ngi ci woon dem nañu def nañu visite de chantier d'ici le 31 mars normalement dañ ko war a livrer su neexee yàlla ci le le le le le bopp geeg coronavirus la ñuy desandi ca bët gànnaaw bu réew ba euh, Sénégal lañu fa mën a demeeku nag mooy ne mbas ba mu fay ami jéego tax nag euh, chef de village yu diwaanu euh, Louga ca commune bu Mbolo Birane ñoo daal di nag amal ab waxtaan lël gu yaatu goo xamante ni ñoom chef de village yi daañu daje ngir waxtaanee nes def ba mën a tàggalikoo ko doomu jàngoro ji ca bërëb yooyu lee la sàkku nag bokk na ci askan wi ñu gën a yeesalaat seen toogin ngir mën a takkaat masque yi jàkkaarloog doomu jàngoro ji Abdou Abdou euh, Khadre euh, ñu teewlu ko ak euh, maa ngi de Raw commune de tey nag mu mel ni dañ une très grande délégation ànd àndandoo ak le président administration de la commune de Fass Ngom monsieur Mame Diagne àndandoo ak Adama Diallo chef de la commune ñu ñëw fii ci dëkk bii ñu tudd euh, daanaka mooy frontière région bi. Louga Louga. Euh, wax dëgg yàlla bi mu ñëwee chef bi mu fi fekk Mouhamadou Rassoul recevoir nañu jox nañu lépp nga xam war na suñu def na ko tey nag dina ñëwoon uniquement pour. jël suñu wàll ci yëf yi nga mooy xeex mbas mi nga xam moo nekk ci réew mi président de la république son excellence monsieur Macky Sall dafa yëngu wax te Macky Sall bu yëngoo wax ñun chef de village daal wax ñun nag ñu déployé suñu ay propos pour facile dem ci sensibiliser askan bi moo xam góor la yaa xam jigéen la yaa xam mag la yaa xam ndaw sensibilisation bi dafa jëm ci wàllu fegu ci wàllu Covid 19 ndax yàgg nañu wax ni le port de masque est obligatoire le lavage des mains est obligatoire rassemblement yi dañ koy moytu xew yi dañ koy moytu dëj yi dañ koy moytu ak yu demee noonu kon ji jii loolu moo tax ñu rassembler l'ensemble de villages.